laa ilaaha illallah Cees ba Tuuba ci Talla Sylla gis nga Talla Sylla mooy dox nee de Cees la jóge Cees ba Tuuba Cees ba Tuuba lay dox chaque année. ndeysaan moo ne ne. moo nekk ne waaye leen xam naa ko. sëñ Tuuba dina ko fay. sëñ dina ko fay ay taale bis bu fi tooyee ah bu tooyee faj ko dina jafe trop parce que lim dox moo bëri maa ngi damay sinap damay sinap defal nii waaw. la ilaha illallah tubal ut kel mu bari rek yu balako tuba jarno ko barke borom kel <laughs> <laughs> mu rek yu balako ci la oro la moy dox ne ci la jugge Thiès ba tu Thiès ba Touba lay dox chaque année. ndeysaan moo ne moo nekk ne waaye lenn xam naa ko. sëñ Touba dina ko fay. sëñ Touba dina ko fay ay taale bis bu fi tooyee ah bu tooyee faj ko dina jafe trop parce que lim dox moo bari maa ngi maa damay sinap damay sinap defal nii waaw. yaa ilaaha illallaah Thiès ba Touba.